defal waalo waalo wax pourtant sama gaa yaa ngi ci biir ñoom ñëpp うん、デュールで。外。 la ñuy wax man kay bi ma si suba bi ma demee gis kàddu gi waaw ñu ngi gis ko gis nga ne actuellement gars yi ñu ngi seet ay ay vidéo yi ñu ngi ay vidéo ay propositions waaleykum salaam wa rahmatulah sama sëriñ waaw sant yàlla finalement c'est tout à l'heure qu'on t'attend waaw léegi y a Sénégal Sénégal su fekkee bëgg nga def déclaration avant ngay dugg nous sommes nous sommes là hein dëkk Notre-Dame Notre-Dame collège Notre-Dame ñu ngi collège Notre collège Notre-Dame waaw d'accord. est-ce que doo débranché la woon. dëgg dëgg ñu ngi ñëw mi ngi ñëw mi ngi fi bëgg nga def déclaration balaa muy dem bu ñëwee mu def déclaration moom xamagul luñ koy luñ koy déglu ñu ngi buntu Dik, ak euh, Ousmane Sarr nitu deug ak Clédor Sen, ak Mohamed, Mohamed Diallo bu ñolank lank ñu ngi le professeur Cheikh Omar Diagne pour mu defaale en même temps déclaration Nous ngi ni buntu dik ndax à 18 h la am lañ ko convoqué

tóol du tóol Reste patiente touti en ligne bi fi nek dañuy quelques réglages à savoir Sénégal 7 ak 9. en attendant que nous commencer mën ngeen partager au max possible pour une large diffusion premier ngeen taxeelu tuuti ñuy pare seen dispositif ñu am jotaay waxtaan ak yéen ci li nga xam ne ñëpp xam nañu intimidation parce que suñu teewaay fii li ko waral dinañ ci ñëw ci lu gën a yaatu mais ñëpp njort nañu ni propos yi Cheikh Omar Diagne ak Karim teniroon su desee imam bi moom lañ leen wooyee mu mel ni nag dañu nekk ci dëkk boo xam ne nit ki amatul sañ-sañu wax xalaatam donc ñun dañu nekk ci tiis nekk ci naqar mais mu mënuñoo dolli tiis ak naqar ci tere ñoo won wax suñu naqar mënuñoo am lu nekk ba pare ñu ne buñ ko wax wala buñ ko waxee dara fekk ñu ci comme si yoon ñun la fi nekk donc loolu ci la ñuy ñëw ci kanam dañuy wax wax ci euh, li ci jar a leeral yëpp dinañ ko leeral euh, suñu frère Abdou Karim mu ngi ci biir euh, ay heures yi heures yi heures ñu ngi koy auditionné que visionné ay vidéo maître Khoureyssi ak avocat mu ngi koy assisté ñu ngi seentu Cheikh Omar Diagne ñi nga xam ne ñu ci yoon bi di ñëw te dinañu fexe mu am lu mu leen jox comme déclaration euh, balaa ñuy commencé communication bi incha allah kon ñu ñaan leen ngeen tàqee lu tuuti rek euh, ñu xool euh, wànn fu ñu mujj ak jëkkër te dinañ leen indil kéemtalaay leeraay mu laaj li wóor mooy lii mënul arrêté nit ko mënuñu noppiloo mënuñu tàyyiloo mënuñu tiitloo mënuñu delluloo gannaaw te dëkk bii ñi ko yor

kon xeyna tay ji li Imam Ndao dalon parce que mënon na dal tam parce que opéré nañ ko fi ñaar yoon ngir ñu sotti ñu yobbu ko almagne rawal té dafa subir ay brutalité policière ay violence policière chaque année chaque mois nga gis ay scandale ci police gis ngeen kaw François Mankam yag avant mom ñass nu mu tuddati Cheikh ñass heure bi daw fii ci loxo alkati lañ la mhm. ay yoon yoon yoon yoon gis nañu kolobane fi ko xamne dañoo sànni lacrymogène ci mat la ba mu tëddoon moom mu lakk ba xam ñu jiiñ ko moom ñu ñu góom ñu da doon taal ko telma la ko fi mu far lakkaale xoola fen yooyu bi euh, ñoo na ñu dóor fa nit bal ñëw naan paaka laak jaasi ba autopsie bi ñëw ni lii bal la xoola googu fen ci ñoom ñëpp nag autorité donc ñooñu ñu bëgg ñëw noot léegi ni ñun duñ fi waxee suñu naxar mm-hmm. ñu wax suñu xalaat suñu imaam jaar seen loxo ba mujjé fi mu mujjee ñu ñun suñu ñort duñ ko fësal loolu euh, mënut a nek ci mim réew Sénégal ñu ñu tere nit ñi wax seen xalaat ak joytu seen nax parce que loolu rek lañu ñu mën wala bok xana xex lañu bëgg parce que nit ki bu fekkee ni mu ngi mëna wax lu ko metti dina ko soulager mais bo ci boko ko mais day exploser lan lañu bëgg ci lan lañu bëgg a nit kon ñun fii démocratie la fi ñëpp fekk Macky Sall dafa judd fekk fi démocratie moom 1961 la judd fekk Sénégal am indépendance def première élection am législative ak présidentielle ci def jamono Sénégal boobu ba léegi ñu ci régime démocratique ñu nekk ci ère boo xam ne kenn amatul le monopole de la diffusion nouvelle technologie information bi kenn mënatu ko téye kenn mënatu ko contrôler kenn mënatu ko censurer kon naka la ñu mën a teree nit ki di wax xalaat surtout rawatina ku am lu ko metti lu ko naxal mhm. ñëpp xam nañu diggante Imam Ndaw ak Abdou Karim mhm. diggante baay ak doom la ñëpp xam nañu diggante Imam Ndaw ak Cheikh Omar Diagne ñëpp xam nañu pas-pasu Cheikh Omar Diagne ci diine lu dal diine rawatina lu dal Imam Aliou nga xam ne moom taxawaayam dañ dañ ko ràññee woon ci diine mais dañuy conseillé ñun ñëpp ñun ñooy soldaaru Imam Ndaw ñun ñooy ndonoy Imam Ndao donc lu ko metti lu metti njabootam lu metti daaraam daf ñuy metti parce que benn la ñu def suñu bopp te loolu incha allah bu ñu commencé déclaration euh, dana gën a leer c'est dama bañoon ngeen xaar xaar bu plan yi rek mhm. moo tax euh, ñu wax suñu xalaat am na solo ñu xam ni tam dëkk bi ñu nekk aussi nit ñi seen xalaat ak seen yëg-yëg dañ ko war di fësal saa su ne benn régime du benn autorité bu mën a

xam nga euh, euh, Karim ñaata yoon lañ ko def est-ce que dafa mës a dellu gannaaw virgule ci li muy xeex ñaata yoon lañ ko dóor ay Abdou Diassé torturé ko ñaata lan la subirul ñoom mënuñu comprendre ni xeetu nit ñooñu dañ leen war a dañ leen war a dañ leen war a respecté dañ leen war a jàmmal dañ leen war a déglu parce que Karim fi mu nekk nii ko am lu ko naqari gis nga fi mu nekk fële c'est le cadet de ses

Wise. Na nyo kunyo ile mo. Na na kane. In ni ba ga le mo. Sana la. Ni kuma ta ho ya ni. ne ko bu ñu gaawul ñu jëli ñu fi ne bu ñu gaawul ñu jëli ñu wax ko loolu. d'accord nañ dem. kan la. voilà mbokk kan internet senegal7.com ñu ngi fii donc bu rek da sax décision de investigation tey jii ñu jàpp daal wala boobu ñu woonu Khary Gueye Cheikh Oumar Diagne mi si yan xibaar ngeen am si les motifs yi tax ñu woo waaw salaamaaleykum ñu eh, ngi ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp xam nañu ñun ñu ngi ci tey la ñuy saraxal imaam Alioune Badara Lo parce que tey la am ñetti fan ci suuf euh, donc jour commémoration la pour ñun jour bii la ñu tànn pour intimider ay taalibe imaam Ndao ay soldaaru imaam Ndao ay soppe imaam Ndao yi nga leen tere ñu wax seen <coughs> seen xalaat ci li yóbbu imaam Ndao ñun xamaguñu exactement lan moo tax ñu woo Karim ak lan moo tax ñu wax woo euh, euh, Cheikh Omar Diagne mais ñëpp njort nañu ni seen euh, commentaire ci li yóbbu imam Alioune Badara Ndao moo tax ñu woole ñoom lan la ñu wax ñoom dañu ni imam Alioune Badara Ndao jàpp nañ ko mettital nañ ko te sekel yooyu moo ko jural feebar bi nga xam ne moo ko mujjee loolu tout le monde peut le subodorer maanaam ñëpp mën nañ ko njort pourquoi loolu ñu ciy woote

ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom moo ko wax waa léegi lu tax loolu ba mu koy wax moom kenn woowu ko moom dafa joxoñ baaraam police ak administration pénitentiaire la la ko dal foofu la ko dalee ak gendarmerie ak suñu jaar différemment donc moom pourquoi woowuñu ko ci loolu kon ñun pour ko pourquoi mënuñu njort nii loolu mën na am jeexital ci wér-gu-yaramam ba mu yóbbee ko lii loolu ku nekk am na sañ-sañu wax sa xalaat mhm. ku nekk am nga sañ-sañu wax sa njort léegi nag firnde mooy lan moy ñu defon autopsie xam lan moko ñu njabot bi nee nañu jaru ko parce que de toute façon amuñu kóolute amuñu kóolute ci autopsie bi nguur di def parce que gis ngeen bi ñoo na bi ñu bal mu dé ñepp gis ni bala ko mais li ñu njëkk wax moy ñaata autopsie la ñu commandité la ñu njëkk wax moy ah du bal de euh, paaka la wala jass objet contendant manam lu ñëw mais ba ko xoolaatee autopsie bi dafa confirmer ni ay bal ñoo ko kon loolu ak kàcc la goo xam ne tax na ñun mënuñu doyloo autopsie moo tax ñun ñun ni nañ jël imaam yóbbu ko te imaam am na lu mu dénk nit ñi balaa muy dem ci wérgu yaramam donc ñun amuñu kóolute ci résultat autopsie léegi nag imam li mu wax ni moom lañ ko teg ci kaso ñëpp dégg nañ ko parce que fan yi vidéo yooyu ñu ngi koy réchauffé waat di ko tegaat di ko tegaat ñu ngi ci xelu nit ñëpp mais loolu bu ko Karim ak Cheikh Omar Diagne ñoom bu ñu jàppee nii loolu moo sooxeloo euh, wérgu yaramam ba li ko fekk li ko ci fekk fekk ko ci ba mu mujjee fi mu mujjee mais loolu yenu maanaa la Karim ci boppam moom mënoon naa dee ci seen loxo parce que tëj nañ ko fi ñaati yoon torturé ko ba mu identifié ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko torturé commissaire euh, Masserigne Masserigne Faye ñaati yoon la ko tudd ak ndaw si nekk nekk central xadi naka xadi Fall ñaati yoon la ko tudd ñooñu est que dañ ko porter plainte léegi moom feebar na fi ñu opéré ko fii ñaari yoon sotti na Sénégalais yi ñoo dajale yóbbu ko Allemagne ñu fekk ko mais mënoon na fi dee léegi bu dee woon lan la ñuy wax ndogalu yàlla non seen loxo la deewee donc euh, euh, nañu nañu nañu jàmmal bu fekkee ni dañu bëgg wàññi suñu fit ba ñu dellu gannaaw wala ba ñu noppi ci dëkk bi nga xam ne dañoo judd fekk fi démocratie loolu Macky Sall ak ay ñooñu mënuñu ko waruñu ko jéem bu ñu bu ñu ni ku mel Abdou Karim loolu mën na ko delloo gannaaw un centimètre dañu dul jangat parce que Karim tek nañ ko lu nek té musul changer ci combat musul dellu gannaaw musul tay même ak wéré dem man dama koy téye ni ko yow da nga wéré wéradi mais day day def buy dem duma sax tàggu man ma ci topat après di daw ben xaaju guddi fi 2h du matin centre bi ñaar yoon lañ ko arrêté xawma ma ci yoon jour bobu nelawuñu presque xam nga te boobu dafa wér wér dafa wéradi donc ku mel noonu naka nga ko bëgg a intimider ci ay propos ak xalaatam ak njortam kooku bu ko neexee gis ni imaamam bi nga xam ne bàyyi la ci moom dañ koo torturer jamono duñ ko jàppee tuumal ko terroriste te loolu dara amu ca ñu jàpp ko ci ñaari at ak juróom-ñetti weer teg ko ci ay mettit yoo xam ne moom génn na nettali ko ñëpp te kenn woowu ko ni ko li nga wax wax nga wax ko teg ko ci deru police wala ci deru administration ñu xaar ba li am am ñu kenn du ko fi euh, gis nga ragal fi dëkk bi kenn constitution dafa séddale cër ku mu jox ko droit na euh, euh, liberté d'opinion dafa ñaaw li ñuy def dafa ñaaw parce que nit ki wax xalaatam ngay jël ay vidéo di arrière arrière mais mais scandale fi amul ci

ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci dëkk bi xool suñu suuf suñuy saax yi di ko jaay patrimoine u Sénégal léegi ay sàcc ñoo ñuy topp ñun di ñu jàpp ay sàcc yu jàppaate fii la am Sénégal mm-hmm. kon loolu ñun mënuñu ko nangu mënuñu leen jox cër boobu mënuñu leen mënuñu leen euh, moytu mënuñu wàññi suñu discours suñu taxawaay wala suñu kàddu du toll ñu talfatal ay ndax li ñuy teg ñoom seen kaso rek lañu am léegi ñu ngi rey sax ñaar yooyu la am ñun ragal ñu dee ragal ñu kaso

ci débat public dañ ñu ràññee ci yenn taxawaay yi donc dañu ne ñun bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wala ñu wàññi xëy na ñoom seen i mbir day yomb parce que Cheikh Omar fii lañ ko jàpp mënuñu ko maintenir en prison léegi dañuy profité ci occasion yi pour jéem ko teg kaso parce que Cheikh Omar Diagne bu toogul plateau Walfadjri nan ay Macky Sall dafa ñàkk jom loolu da leen di arrangé euh, euh, euh, Cheikh Omar Diagne bu toogul ci plateau Walfadjri

ki fi dawoon nag bulletin wu euh, Pastef yi Matam président da ko recevoir ki nga xam ne da doon saaga président ndey sax fu mu nekk nii mu ngi lëngoog moom di ànd ak moom di vidéo di lëngoog jabaram ak yoon léegi ñun la ñu yab ñun ñun ñi nga xam ne ñun askan bi lañu ñu taxawal ñun saagawuñ leen mosoo dégg Abdou Karim saaga na Cheikh Omar xalaatoo ko man noonu ñii noonu mais ñoom saagakat yi ñoom dañ leen jël taf ko daf leen seen wet kon ñom lan lañu bëgg jàngalé ñom lan moy seen modèle ñom kon ñun ñu di nga xam dañuy taxaw di revendiquer ay droits bu noppi nekk ci dëj tey la troisième jour yu imam Alioune Badara moom Karim wu ko ñu convoqué ñom mënon lañu xaar sax ba dëj bi passé ñu woté parce que ñom ñoo yoré euh, euh, seen agenda mais li lu ñaawa ñaawa ñaaw la ci jamono ji nga xam ne ñu ngi nekk ci dëj kon ñun dañoo atteindre dañuy provoquer dañuy pousser au combat ci dëkk boo xam ne jàmm jaa ngi ni tekk mais Macky Sall dafa melni ni dafa bëgg neexal climat social pour mën ci guen parce que fimu nek nekk dafa am minorité il n'a plus les cartes en main toutes les grandes villes askan bi jox na opposition Dakar Kër Massar Thiès Ziguinchor partout Kaolack sëñ boobu ko jël amatuñu dara moitié assemblée mu ngi ci suñu loxo kon nak nañu ak ñoom ba buñu xexlo parce que xex assemblée nationale Xex bi fexé jeunes yi ñu bind leen ci fichier électoral parce que 2024 xex bi moi, je suis nek ni nii assemblée arrêtez ko parce que am la capacité yenn contrat léonins yi assemblée arrêtez ko parce que am na contrat euh, décret bi fini, ni code des marchés publics donc ñu jël ci li société parapétrolière di peu comme marché di def des transactions financières kenn doit leen contrôler loi nous dit quoi, loi nous ñu def OGM ñu dindi ko mhm. ak lan nga ne donc donc nous mooy combat au niveau de l'Assemblée nationale

avec des preuves wala indil leen wala wala porter leen plainte mais suñu xalaat dañ koy wax xam nga koo xam ni moo waxal boppam te kenn woowu ko ni ko lu tax nga wax mais ku jaar ci waxam luñ ko ci woo fii la nekk wax li ñu ko def yëpp wax na ko ay yoon yoon yoon ay plateau ko te moom mooy ndeyu mbili moom moo leen joxoñ baaraam tuuti mais ñun mën nañu xalaat ni kii li mu doon wax mais li moo ko yóbbu moo moo tax yaram gi sutante on peut le suborder donc ñoom démentiruñ ko waxuñu ci dara loolu la problème léegi dëkk bi kenn lu wax sa xalaat

ñoom dafa mel ni dañu bëgg anticiper benn combat boo xam ne moom leen arrangé pour ñu jàpp mais liggéey bi assemblée nationale te ñun fan yi fan yi am na lu fi liggéey woon fan yi dañ def benn communication spéciale ci situation réew mi fi mu toll ak ñoom li ñuy nasako ci mbirum situation nationale lu ma ko personnalisé ak des problèmes liés à l'insécurité à la sécurité et à la démocratie dans ce pays parce que ñu ngi fiy togg loo xam ne bu ñoree du baax te loolu du ñu seetaan ñu togg loolu mëni la je vais mettre toute la presse au même pied d'égalité on va convoquer une conférence de presse Inch'Allah, Yagotou. Il dafa am liggéey bu jiitu boo xam ne mais ce lu ñu dit askan bi la une entière responsabilité de une liberté mais on le sait on ne se suit pas on l'assume parce qu'il faut nous am oui en fait euh, maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan Ousmane Sarr maam gën Ousmane Sarr man nag tey mën naa ne Karim moo ma yee parce que daf ma woo presque dix heures mooy fekk na maa ngi nelaw sax jógaguma si la ma woo téléphone fekk na dafa waroon am benn émission bu mu waroon def ma ne ma woo ma Oustaz Makhtar Sarr nee ko waa léegi jël si ma bi je euh, pense que nag mu doon loo xamante ne nii c'est pour man donc dañu yàpp Abdou Karim Gueye mais jukkandiku rek bi nga xam ne moom lañ ko war a jox en tant que sénégalais parce que pour man Abdou Karim Diaye, ñom xam nañ ko. yàgg nañu ko japp xam nañ ci mu dëkk mais pourquoi pas woowuñu ko ñu convoqué ko ne ko heure tel na nga ñew dañ la soxla dik mais dañuy ñew fajar fekk ko muy ndek parce que sank rek ma ngi dugg mi may toñ naan ma sama mburu ndek sax ci biir oto bi laa ko jeexalee mais lolu ban ban xétu intimidation la ban xétu yabatel la moy hum, hum. nit ki nga xam ko xam fi mu dëkk au lieu nga jox ko euh, convocation wala nga woo ko téléphone ne ko dama la soxla heure tel mais nga ñew fekk ko këram muy ndek nga ñew ne ko dig mo la soxla donc nga ñewal nga top ñu mu top leen nga jël ko dugal ko ci auto bi yóbbu ko fekkee ay 10 heures 11 heures dana ma actuellement ñoom ñoo ma xaarloo parce que nee nañ dafa am ay vidéo yoo xam ne ñu ngi koy visionné ngir man ma si ngir man ma si entendre si lañ ma bëgg a topp maanaam li am mooy dañu ko jëlee këram yàqal ko ndekkeem intimidé ko indi ko ba dikk léegi ne ko xaaral ñu dem seet ay preuve yoo xam ne si lañ la war a entendre si lañ la war a topp kon lii moo am Sénégal mooy da ngay jàpp nit ki ba pare dem di wuti ay preuve yoo xam ne si ko mën a parce que man loolu moo ko wax si gémmiñam may dégg c'est parce que lii nag

bu ñu arrêté Abdou Karim Gueye ak euh, professeur Cheikh Omar Diagne ay junni junni sénégalais ñi ngi si ginnaaw ñoo xamante ni nii même bu fekkoon ne naruñu woon a wax sax si li nga xam ne mooy cas Imam Ndaw dinañ si wax ndax arrestation bi nga xamante ni arrêté nañ ko Abdou Karim Gueye arrestation boo xamante ni bu illégal la arrestation boo xamante ni nii donc pour intimider nit ki ñi ngi nax seen bopp ñun dinañ continuer di si wax te incha rab rabbi liggéey bi ñu sumboon ak Abdou Karim Dieye ngir leeral sénégalais yi li nga xam ne imaam jotoon na ko dund si kaso bi ak li ko topp ak li waral xëy na tey suñu borom def mu ñàkk bakkanam liggéey boobu dinañ ko continuer te si la ñu nekk te incha rab rabbi dinañ ko leeral sénégalais yëpp ñu xam ne imaam Alioune Badara ndaw ginnaaw yàlla suñu borom bi nga xam ne moom mooy jël bakkan li ko rey mooy li nga xam ne loolu la ko nguuru Macky Sall teg si biir kaso bi loolu dañ koy wax te koy assumer te dinañ ko leeral askan bi yëpp ñu xam ko waa dig nag nañu xam li ñuy def nii defuñu lu dul di di xàll beneen terrain boo xamante ni nii du leen arrangé parce que ñu ngi ñuy woo nag benn combat boo xam dinañ ko mën a rabbi mooy que bu fekkee nar nañoo téye Abdou Karim Gueye ak professeur Cheikh Oumar Diagne dès demain incha allah dinañu commencé mobiliser tous les mouvements yi nga xamante ni ngi fii Sénégal ñu. engagé benn combat boo xamante ni nii ñoom dinañ ci bëgg a génn mu tëleen parce que nag du ñu nangu ñu jàpp ay doomu sénégalais di leen xañ seen liberté di leen intimider di leen woo si loo xamante ni nii ndey mi léegi moom waxoon na ko te kenn woowu ko ñoom ñu leen si jàpp pour intimider leen loolu lañ ne du ñu ko seetaan mu jàll tey du ñu ko seetaan mu jàll ëllëg moo tax maa ngi woo sénégalais yëpp nañu jug debout te waajal te ne di leen leen woo fa yu néew si benn combat boo xam ne soxal nañ si sénégalais yëpp te incha allahu yi dinañ ko mane ensemble teewul dara loo xam ni moo ñu teel teel delloo ginnaaw actuellement nag comme ñi nga ñi ngi si euh, audition bi euh, ki nga xam ne mooy maître Khoureyssi Ba mi ngi si biir ak yeneen avocat yi ngi xaar tuuti ba xam bu ñu génnee lan mooy euh, lan mooy lan mooy njuróof li njuréef li si wàllu audition bi incha allahu rabbi dinañu leeral askan bi ñu xam te bu fekkee nag li ñu yaakaar na loolu moo tax ñu arrêté ko dañu xam ne ñu nax seen bopp ñi ngi sonal seen bopp te combat boobu incha allah dinañ ko loolu laa amoon lu may wax maa ngi tudd Ousmane Sarr Mamadou Mouvement Nittu Dëgg Valeur. waaw man ci ban bon man si Seydina Mouhamadou Maral Diallo nekk euh, secrétaire général bu collectif ñoo laa waaw lu ñu fi indi tey lenn rek mooy euh, lu ñu dégg mu nekk lu ñu métti lool parce que mënuñu comprendre ñu nekk Sénégal euh, Karim bokk ci ñoo xamante na ñoo gën a influence Sénégal ñëpp xam leen xam fu ñu dëkk xam lu ñuy liggéey xam fu ñu leen mun a fekk ñu xëy fajar fekk la sa kër séquestré la quel que lu mu def Abdou Karim Gueye dañ ko waroon convoqué mu ñëw ñu déglu ko ci li mu koy toppee bu ñu ko ci waree téye ñu téye ko ci bu ñu ko ci waree bàyyi ñu bàyyi ko ci mais yabaate bii nii ak manque de considération bii ñu def ci koy dañ koy parce que mënoo bëgg a jàpp nit ki naan ko da nga da nga da nga da nga jal yoon te ni nga koy jàppee da nga jalgati yoon pour jàpp mënoo ko bëgg arrêté Abdou Karim Gueye nga xam noo war a jaar normalement mooy nga convoqué ko boo ko convoqué du daw du du dellu ginnaaw du dellu si lu mu waxoon dafay ñëw dëggal lu mu waxoon au contraire nga ne non non da ngay dem foofu pour intimider ko mais ni day damay ciy wax rek ginnaaw mooy képp koo xamante ne li doon mooy da ngay nekk di wax di jàmmaarloo ñuy da nga ko préparé parce que yii dafa ay nit ñëw fekk la fa na lañ lay yóbbu ñëwee fekk fa loo xamante ne riposte bu toll comme li ñu ñëwaat beneen yoon beneen yoon li wax mooy boo gisee nit

plus de 10 heures de temps ñu jàpp doomu jàmbur ba pay di xaar la lañ ko war mun toppee ñu ngi koy dégloog avocat am am na lu ay rumeur yu ñuy dégg mooy c'est lié aux conditions yoo xamante ne c'est inhumaine moom la imam Aliou Mbadana nekkoon ñu dund imam na wax ko Karim répété lu mu waxoon ñeneen ak ñeneen répété lu ñu waxoon ñu yàq ci Karim ak Cheikh Omar Diagne wax dañ leen di dee mais li day yombal rek ci li ñu war a jëm mooy affrontement bu war a am entre le le le peuple sénégalais en son globalement ak nguur bu fi nekk

mu bëgg nag ñu eggee si boobu noonu mu jalgati yoon toogaat Sénégalais toog di ko xaar nga xam ne tey jii nii bu ko doon def day yóbbu Sénégal si beneen beneen beneen landeeru moo war tey jii ne tey mu ne day day day anticiper combat yoo xamante ne c'est d'ici un an ou bien quelques mois. loolu moo waral tey ñun en tout cas ñun waa ñoo lànk ñun ak mouvement yi fi nekk yëpp ñu ci dëgg ak ñëpp ñu fi nekk pare nañ pour jàkkaarloo ak Macky Sall jàpp na ay nit tuddee leen une force spéciale leen ko.

te am na ay relation yoo xamante ne c'est personnel et particulière yi ñu am ak moom donc lu bëri mën nañ ko ci am bu dee nga bëgg a jàpp dañ leen bëgg a jàpp nag pour intimider leen wax leen li ngeen xam boo leen ko waxee dinañ neen leen def li dinañ def ñu ngi nax seen bopp parce que Karim comme Cheikh Omar Diagne ak ñeneen fu ñu leen nar a yóbbu mooy noppalukaay la su ñoom mm-hmm. loolu moo waral daal ñu ñu ngi ñu ngi woo sénégalais ñu mobiliser comme Ousmane Sarr ni nga ko waxee léegi lundi bu fii ak ak fan yi néew dinañ xool wenn action la ñuy mën a incha allah ba ñu bàyyi suñu ay camarades. merci beaucoup. waaw ma baalee ma ma dolli ci dara rek. Mhm. Euh, damay baamu ni inélégance la. Mhm. Euh, doomu doomu imam Alioune Badara Ndao ñetteelu fan dëju baayam saraxul dëju baayam nga ni da koy woo ko convoqué. Ah, kooku déedéet damay damay ah, misaal. dañuy misal parce que ñun ñu ngi ci dëj maanaam imam Alioune badar Ndao ñu xaar ba troisième jour dëju papa ñu convoqué ko woo ko loolu inélégance la loolu état warul doxee moom ñëpp xam lien affectif yi nekk diggante Abdou Karim ak lien séculaire yi nekk diggante Abdou Karim ak diggante imam daw diggante doom ak baay kon tey jii Abdou Karim waxuma Cheikh Omar mais Abdou Karim kese kese kese buñ ko waroon a convoqué waroon nañu xaar ba huitième jour bi passé mm-hmm. parce que mu ngi ci dëj mu ngi ci tiis mu ngi ci naxar dafa mel ni doomu Imaam Ndao parce que Imaam Ndao dafa am ay doom yu mu jural boppam ay fils biologique mm-hmm. ak ay fils yoo xam ne euh, adoptif yoo xam ne ñun ñoo ko bàyyoo ñun ñoo ko def bàyyi ñooñu nag ñu ngi fi nekk ay milliers et des mm-hmm. Karim dafa fës rek mais Imaam Ndao ak a bëri ay doom ci soldat man nii ci ñooñu laa bokk donc suñu suñu bésu dëj tey jii ñu waroon nekk kaw la ñu xëy suba teel jàppale ñu karam nu ñuy demati

asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen ziare di leen nuyu yéen ñëpp euh, tey comme ñu ko waxee rek. ñoo xëy sa Djibril Diagne ñu na ci Diagne solution comme ñuy wax rek Diagne lépp loo xam ne ne luy naqadi mate moom Diagne moom suñu wootee luy naqadi mate rek Diagne parce que dañ gis ne Abdou Karim tey euh, ni ñu ko woowee ak ni ñu wooyee tamit kii Cheikh Omar mooy dëkk bi nit ñi kenn xamatul léegi fan ngay taxaw maanaam li nga xam ne ne Macky mu ngi koy wone ci dëkk bi dafa ëpp manam lépp lo xamne ne safane wala rek maki lol lay def mom dafa melni ne jàmm mom da ci bëggul dara te toujours nit ñi ngi koy wone ne jàmm ji mi bi mi bañ wala bi mi woo biñ koy wo nako fexe di ko jëmmal nay fexe di jëmmal jàmm parce que gis nga luddul dul jàmm jàmm ko gën te mom setlu nañ toujours lépp lo xamne ne luy naqadi nit ñi rek ci la nekk jox nañ ko avertissement taxul mu xam jàpp na fi Khalifa Sall ken waxul mu jàpp fi Karim Wade ken waxul mu dem ba am kum mu bëgg a jàpp bi yëpp téye ko ne ko attention bañ ko ne attention waron na xalaat ne lan mo tax nit ñi ne ko attention ñëpp génn am luñu woné parce que jeunesse bi amna na ko joxe woon lancement buñ ko joxon ne ko arrête luy euh, li nekk ci kenn euh, li nekk ci ñeneen ñi nekkul ci ki kon nag moom it la waron vraiment xalaataat li nekk ci ginnaaw comme lim mu bëggoon dañ ko ko jox na ñaan yàlla jóge ci jàmm te gis na bu jógewul ci jàmm leneen dina amaat ci moom.

gis nga ku safut ku safut ku safut doo mu saf saf te moom instant bi dafa safadi kon nag li muy bañ ci la ñuy nekk te incha allah ñii dina leen bàyyi ci nii wala mu bàyyi leen ci nële xam nañ nag instant bi ni Sénégal yëpp ñu ngi koy bàyyi xel na delluwaat xelam xam ne li mu yor nguur la te jeexal na ku jeexal da ngay nangu xam ne na jeexal nga kenn rek moo dul jeexal mooy sunu borom kon nag moom mi nga xam ne ne jeexal na na ko na bàyyi nit ñi ci jàmm nit ñi nekk ci dëy bi ñu nekk te incha allah ñu ngi woo sénégalais yëpp suba muy ajjuma na ñëpp ci dëy national bi muy jumaa yi jàkka yi église yi ñëpp nañ ñaanal imam Alioune Badara Ndao parce que jina ko fi ci réew mi jina ko ci xam-xamam jina ko ci ngorom ji na ko ci foam parce que ngëm-ngëm bi nga xam ne ne imaam Alioune Mbaye Alioune Ndao yoroon na ko loolu manqué na ne ci réew mi moo tax l'islam dina ko jooy. sénégalais yi dinañ ko jooy. Imam Ali Ndaw nañ dem ba ci kanam gis nga Sidi Lamine ba mu fi nekkee lu bëri mu ngi ko doon def te taxuloon ñu ñu xam li mu yore woon mais bi mu fi ne manqué na fi presse bi yéen xam ngeen ne Sidi Lamine manqué na fi. sénégalais yi xam na fi kon Imam Ali Ndaw tamit bu fi jógee ñëpp dinañ xam ne manqué na fi diine dina ko jooy te ñun ñu ngi koy jooy kon ñu ngi koy ñaan fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. doomam yi mu fi bàyyi muy doom comme li ko kii waxe muy doom yoo xam ne biologie la am ñoo xam ne doomu sénégalais lañ comme ñun ñun ñëpp ay doomam lañ di woo ñëpp ci jàmm ci dal que Macky Sall na arrêté incha allah dina arrêté ci nii wala mu arrêté ci ne te mbiram jeex na mooy li mu waroon am am na ko fi mu waroon jeexal jeexal na ko bësam jot na dina dem ci jàmm bàyyi réew mi ci jàmm wa asalaamualeykum wa rahmatullah salaamaaleykum parce que euh, ñu ngi ziar ñëpp di leen jaajëfal di jaay lu ñu bokk ñun ñëpp man na samay kàddu du bëri parce que yàgg nañoo wax ci jëriñu dara faju dara ñuy ñan ñaan Macky Sall na delloosiwaat xelam daal parce que dañoo toll ci moment bu metti moment xiif inondation bi bëri ay bakkan yi wadd ci ndox mi yaakaar naa bu amoon ñu muy entendre wala ñu muy convoqué mënoon naa convoqué ñu joxoon ay milliards pour ñu wax ci inondation bi parce que moo ëpp solo nag ñi yor wàllu dund bi yokk dund bi ba ñun baadoole yi ñuy jaay suñu ngor bi war naa war naa convoqué ñooñu te mu bàyyi doomu Sénégalais yi parce que mu ñu bëgg a egg ci ci ci kàkk te ñun sénégalais xamuñu kàkk te Macky sës nañu fi mu ne ba ci miir wis bi parce que lu mosul woon am Sénégal mooy riposté euh, wax li nga xalaat léegi mu ngi fiy am te ñun jigéen ñi aussi nañu yërëm aussi parce que suñu doom yi lay rey suñu càmmiñ lay tëj suñu jëkkër yi lay tëj vraiment Macky 2012 ak léegi bu xoolee ñëw tëj ñëpp ban rendement la ko amal war naa taxaw def seetlu nag war naa taxaw bu baax a baax mu def taxaw seetlu ba mu dalee tëj ba tey ban rendement la ko amal ak ban avantagement la ci am kon war na xam ne tëj bi amul njëriñ parce que bu tëjee fukki Abdou Karim. vingt nit a ngi ñëw. waaw bu tëjee Abdou Karim tey yéen Abdou Karim a ngi fi bu tëjee Ousmane Diagne yéen Ousmane Diagne mi ngi fi bu tëjee benn jigéen fukki jigéen a ngi parce que li passé bi allah

asalaamaaleykum. naka ba soo alhamdulilah. ñu ngi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xanaa euh, gën a am firnde rek. ci dëkk bi ñu ne. Euh, dañoo foowee lépp luy institution. foowee lépp li nga xam ne mooy li am solo ci réew mi. dem nañ ba jamono bi nga xam léegi dikk moo poulailler ku lañ fay woo doo leen fay woo. donc euh, ñun nag am nañu benn jaaxle am euh, jamono bu ne ci lu jub lu jaar yoon bi ñuy dox pour ñu mën cee wéy dañuy am sawar a dem xool lan la ñuy wax ndax xam nañ ne ñu fi ne moomuñ seen bopp te mënuñ seen bopp. Hmm. di leen sant rek hmm. donc on les en veut pas xam nañ ki nekk ci kaw. Hmm. ki xam ne leen ilif leen sonal. di leen defloo di leen di leen di leen sonal suba léegi ci lancement benn entreprise. di am eh, jotaay ak sénégalais di waxtaan ci wàllu parti bi nga xam ne ko taxawal ko rassemblement pour la République ànd si dëgg muy parti bi nga xam ne eh, li mu def dafa dafa révolutionnaire et ça fait trembler la République au plus haut sommet maanaam mbiru l'islam ñun dañoo teg benn problématique bi nga xam ne lu ñu war a waxtaanee la te on va imposer ce débat là dans ce pays lan moo tax ay julit nekk si dëkk bi bopp quatre pour cent de musulmans bu ter leen leen mën leen sukkandiku si jàngale seen yonent yéen pour ñu mën a xool ñu defaree dëkk bi lii mooy suñu question bu ñu tegal dëkk bi léegi nag bu dee ngeen wax waxu démocratie wala waxu ouverture France bee ngeen di roy am na parti islamique bu tudd UDMF Union démocrate musulman français Belgique am na parti islamique islam toute l'Europe am na ay partis yoo xam ils sont appelés démocrates chrétiens c'est des partis chrétiens yoo xam ne ñu ngi puiser si jàngale yoon pour defar dëkk donc mun ñu ignorer jàngale yoon ci Yàlla Isa ak jàngale yoon ci Yàlla Muhammad ci dëkk bi nga ils sont 100 de croyants dans ce pays donc lii mooy le débat qu'on pose c'est un débat bi nga de paradigme bi nga xam ne ñu ngi siy xaar ay réponses mais pas ay intimidation mënuñ ñu mënuñ ñu tital nous avons pas peur jox leen suñu bakkan yi addu yàgg na li imam daw dund ñun xam nañ ñu dund lu mel noonu moo tax sommes déjà préparés alhamdulillah sama amna ñu jot ne li ngeen waxon si euh, dem si yalla imam daw moom moo waral ñu wolé ndax jox nga loolu je ne pense pas man dama japp ni ñam amuñu ñoon sax euh, yëg yek woo ma ndax euh, Karim mo ngi dem fekk karim japp ko depuis le matin parce que def vidéo man vidéo Karim Fatliku ma sax la Karim wax et en aparté dama Karim wax associé ci vidéo bi j'ai appelé à ce que les gens cotisent dans la cagnotte et j'ai appelé à ce que les gens prient pour Imam Daou Faites-le ma fu ma tuddee sax de benn donc je ne vois pas pourquoi ça nous war pas par rapport à vidéo ou à Karim donte je suis hyper solidaire avec Karim qui se bat pour nous qui se bat pour ce pays Les lu ko m'a dit, jàpp naan laal les ma te lépp lu koy def ma ko defaat benn hmm. suspicion yi nga amoon li nga ne woon sa xel d'Alou, même bu nekkee accusé woon nit si ñi fi Imam Ndaw jógee jàppoon nga ne euh, autopsie laajoon non non lii du suspicion

yu bëri yee xam ne ay laser ñu koon bu nekkee prison ñu koy isolé di ko def mbir yoo xam ne ba mu génnee léegi ni yaramam neexatul dem na ci médecin ñu xool ko ne ko yéemu nañ lu tax ngay dox ba tey ndax sa yaram dara manqué ci hmm? donc lii li wax ni lu yàgg la peut-être léegi làkku na mën naa ko wax waaye lii dañ ko xam bu yàgg coono nag mooy man je me sens sax coupable dama jàpp ñun ñëpp ñoo setaan imam imam dañoo waroon bu mu génnee yoo doon a jël imam dem jéem xool ñu def ci moom luñ ko seetee ak luñ ko saytoo on dit pas que on dit pas que diwa ko rey ndax loolu yàlla moo ko xam duñu wax li nga xam ne xamuñu suñu culture ak suñu éducation may ñuy wax li ñu xam waaye nag xam nañ nous avons un état délinquant état bi nga xam ne jël na nit wér nekk en très bonne mu tuumal ko ko sosal ko ko toroxal ko mu am ay yitte ay yéene ñu bañal ko ñu bëgg génn àdduna taxaw nañ ko bëgg a dimbali on a un état mesquin un état hypocrite un état criminel moom on le on le réaffirme te loolu mënuñu si dellu ginnaaw mag yi

on va le poursuivre fu mu mën ci nekk. bu demoon ba sur la planète Mars wallahi on va le suivre. donc euh, li nga xam daal bëggoon ko wax. len leen ziar yi ñëpp di leen euh, di gis sama ya Seyda di ñep ñëpp macha allah ak toujours présent. yalla na yàlla sàmm Sénégal. Euh, ni ñu nekkee di fowé les institutions. et la liberté de défense la liberté de défense dafa ahurissant et dafa dafa dafa dafa triste dafa triste macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërë ngeen jëf mais après avocat ñu ñëw def déclaration. d'accord Kanjum. I am a